allo secrétaire waaw faites les entrées oui s'il vous plaît. salaamaaleykum monsieur Faye. ah Père Bekay Mbaye monsieur Faye ñu ngi lay ziar Faye. Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye na ngeen def. maa ngi lay ziar Mbaye alhamdulilah Faye. Mbaye naka mu Faye Faye Faye yaa ngi ci jàmm. na ngeen def ça va naka mu. alhamdulilah naka la ah champion. na ngeen def Bombardier. alhamdulilah ana waa Mbour. alhamdulilah maa ngi ci jàmm. oui ça va bien mbër. ça va bien alhamdulilah. bisimilah naka mu. ça va ça va bien. ah tey de vraiment kontaan naa. Oh, oh, oh, attention mbër siège bi dafa xaw a kii oui oui oui oui. ça va na ngeen def. waay nice ah mais champion félicitations. Ah. merci merci waay merci merci yéen a ngi si entraînement yi. waay sant yàlla. ana waa Mbour. waay maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay. Père Bekay na ngeen def bay na bu baax kay fay naka activité yi ñu ngi sant bu baax a baax naka liggéey bi alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla dolli amin na yàlla def jàmm amin amin amin amin di barki Seydina amin amin na ngeen coono ñu fi rek fay ça va bon ñu dem ci vif du sujet xam naa ne amoo leen jot ndax yow entre yi ci lamb ji mhm. bombardier ak ay am mhm. ak préparation combat am yëpp mhm. xam naa ne jot amul moo tax euh, président moo leen woolu woon tey waaw ah. son excellence. Mm-hmm. waaw monsieur Macky Sall. Mm-hmm. Euh, am batale bu mu batale ak yéen. Mm-hmm. di xam le ne yow Bécaye Mbaye nit nga koo xamante ne bii bu fekkee danga nekk si làmb di reporter jàmbaar bu lay déglu sa reportage da koy gën a yokk jom. dëgg la moo tax ñu soxla la tey. yow aussi Bombardier waaw nga nekk mbër moo xamante ne bii mën naa ne roi de arènes ku ko fi yor yaa koy nangu ci moom. waaw nga doon champion bu mag nekk Mbour. waaw son excellence nag am mission boo xam ne daf ko soxla woon. mu ne soxlawu ci kenn hmm. ku dul yow bombardier ndax déjà sa tur rek dafa am lu mu ñuy jox parce que bombardier ku ko dégg xam ne damay bombarder voilà déjà lépp laay bombarder déjà mi ngi noonu gënee <laughs> la sa tur moo gën a jot tax ñu soxla la waaw yow aussi alaaji Bekkaay uh-huh. ñaax gi ngay ñaax jàmbaar moo tax ñu soxla la jërëjëf jërëjëf ba tax na président débloqué la somme de 30 millions uh-huh. waaw bu ko defee ma jox leen ko yow Bombardier nga am 15 millions. Mhm. Alaaji Bekkaay nga am 15 millions. ah bomb. waaw mën ngaa toog fi nga toog dara xaalis la moo doon. waaw mën ngaa toog fi nga toog dara du la ci rëcc. bomb yow laa koy eh, jox koy mbër daal mu jeex. waaw bu ngeen génnee bu partagé xaalis bi ku ci nekk jël 15 millions. jërëjëf jërëjëf waaw moom waxuloo woon nan la exact. waaw c'est dafa am lu mu soxla. Mhm. dafa bëgg ngeen ñaax jàmbaar yow surtout yow. Mhm. bu nit di bëre quoi bu nit di bëre nan nga koy defal lan nga koy defal ba tax mu gën a am jom maanaam ni nga koy ni nga koy waxee di ko reporter di ko encourager di ko ñaax. Mhm. li tax mu gën a am jom. yow aussi Bombardier tamit li ñu soxla ci yow. mooy boo jàkkaarloo sa adversaire arñi bi ngay yor. ni ngay def sa kanam ak ni nga koy songee ak ni ngay ni ngay def articuler loolu lañ ko soxla. moo tax mu jox leen loolu comme ça xam naa après di ngeen ciy ñëw. mais signature yi lañ bëgg. Mhm. ngeen décharger fii signature yi. moo sama manager war a. non c'est moom mën nga yow. parce que engagement personnel la quoi. Mhm. waaw léegi mën nga. Ah, si mbër signal ba pare signal ba pare mbër. waaw signature mbër nag moom xam naa ne. <laughs> ma sama manager wala mën naa signé. bon mën nga signé ah. bu fekkee parce que président nga koy defal de. ndànk wóob. déedéet moom yaa ngi dagg. ndànk la rek ndànk la rek ndànk ndànk. dafa xaw a xoteeku mais garaawul per per Bécaye signé ci wér gi foofu. ndànk yéen parce que da ngeen doole jee bari ah? loolu la parce que am na mbër yoo xam ne vraiment. Uh-huh. seen tur. dafa am lu muy signifié. Uh-huh. ay mbër yoo xamante ne ay ay ay maîtrise. waaw xam nga ay bombardé ay douze sept. maanaam yooyu ay yoo xam ne. mën nañu toppandoo voilà yoo la ñuy toppandoo xam nga. ay mbër la yoo xam ne seen tur yi dafa neex a. Uh-huh. prononcé ci circonstance bi ñu jëm nii. waaw léegi Bécaye ma bëggoon nga ñëw. waaw xam nga lamb dafa garaaw. Mhm. ndaxte boo Musaana nekk mu may fàttali ñoom Mbaye Guèye. waaw ba ñoom xaar Musaana toog ci côté ba. Mhm. dend ak ñoom Daaro. Mhm. ba ñooñ ñoo li daan ñaax waaw ba baabu ngom mii am na tëgg yi daan tëgg yoo xamante ne nii bu ko jiñee jàmbaar rek daanaka sa yaram day tàng waaw ah bu ni mu doone ci yi noonu la doone ci soldaar si waaw mën nga taxaw ñoom naan ko ay eh, bés tey yow la tey yaa moome tey yaa ware sa njàmbaar waaw dëgg la ndax njàmbaar daa nekk loo xam ne ci deret lay daw te bépp sénégalais boo gis muy ci làmb ji di soldat si man ni mën naa laa yëkkati ba nga doon jàmbaar bi tigi léegi mën nga kii ma filmer ko comme ça waaw waaw waaw yooyu ma filmer ko quoi waaw mën ko am waaw allez comme mi bom mi mi tey ah, waaw comme ñaax man naa ne ko facile l'enfant chéri de Mbour mhm. ki mooy roi des arènes mhm. ki moo toj làmb ji mhm. képp koo xamante ni moo fi roi des arènes moo lay arrêté te amul ci benn sentiment xoolal képp ku ñu mosaan wax roi des arènes rek bu ñu ne la bombardé bombardier nii rek da ngay tiit. <laughs> kon jàmbaar a ngi nii. moo tax ma wax. Ah. dama ci kontaan. Mhm. parce que yow saa yoo yore micro sama lamb boo mhm. dëgg. yow da doo jëy mbër yow da wax dëgg mbër ba mu xam fi mu jógee. noonu la mooy moo tax ma lambaay nga ca lambaay. ginnaaw ngu jëy nga ca benn maa ngi waagu ñaay man maa waagu ñaay. mbala mbay nga ca laa mbay biram nga ca bon man maay waagu ñaay ñaay bekaay laaj ma koo daan pomb laaj ma koo daan balla gay bi ñuy coow ko nax maa ko nax daan ko mu daanu dem ye koo daan Tyson bi ñuy coow maa ko daan mu gedd lamb ne lamb yi dafa am jinne jinne jinne jinne jinne ne Bombardier. Eh, baaboy baaboy bi ñuy coow maa ko daan Dakar daan ko Paris daan ko Dakar. Eh. Eh. ma la fi daan. ma la mbay nga ca la mbay biram ñeme nga ca ko. may Bombardier ku ma Bombardier nga dellu ginnaaw man may Bombardier. maay bombardier. dama ne yaay bombardier. ni Bécaye maay bombardier. ñeneen yaay kuy bomb. ñeneen yaay bombardier. eh, eh bomb. roi des arènes bomb. maa bomb maa bomb maa bomb maay bombardier. dafa gaaw a tàng rawatina ah, jàmba ah non non non vraiment vraiment je suis satisfait mhm. kontaan naa trop trop te xam naa ne lii vidéo bi bu ko président gisee mhm. dina gën a kontaan parce que rëccu ñu lu tax ñu woo leen mhm. alaaji Bekkaay li nga fi ñaax sànq ci mbër mbër moo ko ñaax su amul doole amul fit <laughs> dina jaaxal nit ñi yow aussi euh, Bombardier roi des arènes li mu fi bàkk aussi defe naa ne am na solo xaaral ma woo son excellence monsieur le président. moo ko ne ko kontaan waaw il faut ma woo ko. Ah, ah, ah, gars yi fi mu ñëwee sax dafa baax il faut fi baax. na ndax xam naa ne fi mu toll nii. allo salaamaaleykum. monsieur Faye. monsieur le président. na nga def waay. Sall maa ngi fi ñu ngi sant bu baax. ah liggéey bi. alhamdulilah ñu ngi ci Sall. maa ngi am mbégte a contentement bu baax ci yow. jërëjëf Sall jërëjëf. naka mission bi. waaw ñu ngi ci mission bi de. ah yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah ana Adja Marème Ba mi ngi ci jàmm bu baax. Marème Ba mi ngi si jàmm elle bien. alhamdulilah alhamdulilah bu baax a baax. Euh, yàlla def na ne recevoir naa fi ñaari gan. Euh, Bombardier le champion de Mbour roi des arènes. ah Bombardier mel na. ngi ci bureau bi. Bombardier ñëw na. waaw fi ñëw na. ah alhamdulilah. ak ki nga xam ne mooy père Bekaay Mbaye. Alaaji Bekaay Mbaye Alaaji Bekaay ñëw na. Bekaay Mbaye mel na bu dee Bantamba. waaw bu Bantamba ñëw na. ah Bekaay Mbaye la. waaw ñoom ñëpp vraiment ñoo nañ fi dëgg la pour mën la jàppale ci li nga xam ne moom nga sumb waaw maanaam mën a ñaax jàmbaar yi waaw mën leen a won yoon wi waaw xam bu la neexee mën naa leen jox téléphone ah kon sama aajo fajana waaw kay waaw jox jox jox ma kenn si ñoom rek xam nga jox la alaaji Bekaay alaaji Bekaay waaw comme mooy kilifa gi asalaamaaleykum asalaamaaleykum son excellence maa ngi lay nuyu di la alaaji Bekaay borom Bantamba ñu ngi lay ziar di la sargal le meilleur communicateur da am mbégte contentement bu ñu invité fii ci panel bi jërëjëf yéen a ko moom yéen a maa ngi doon préparé yu bari ci yéen waaye xëy na dafa urgent moo tax ma woo eh, vraiment man dama lay suivre bu baax a baax jërëjëf chaque dama lay suivre ah, vraiment kontaan naa bu baax ci yow gis naa ni léeg-léeg léeg-léeg mër daan mhm. te xam naa ne sa kàddu la daanee dëgg la ndax ni nga leen bàkkee ni ngay waxee ñoom ak sa olof yu am important yi dëgg la vraiment ma kontaan ci yow lool lool lool moo taxoon ma wóolu la. dëgg la euh, jot nga xaalis bi. waaw jot nañ ci macha allah mais président loolu matu ko woon. ah alhamdulilah matu ko woon. jërëjëf jërëjëf si ngeen. Uh-huh. ah dama bëggoon rek bu ko defee tey si guddi. Uh-huh. nga ànd ak Bombardier ngeen demal ma Yemen ci geer ba. demal la fan. Yemen ci geer ba comme ni ngay bàkkee mbëri. ah da ñuy yebal. nga dem Yemen ci guerre ba. ah ñu dem yebal. Sam yebal bi ne Touba. Bécaye Mbaye yaa ma gën a ah, dégg alhamdulilah foofu day moom soriwul noonu sax dama ni sam yabal waaw dama ni uh-huh. dama bëgg tey su guddi ah. nga ànd ak Bombardier nga demal ma Yemen fa guerre ba am ah waaw d'accord dégg naa la kon xaar ma jox la Bombardier mu demal la nga ne nga Bombardier demal la Yemen jox ma jox ma Bombardier le roi des arènes bismillah kii la. allo président. Eh, salaamaaleykum. oui maa lay gërëm di la sant. et le roi des arènes. sant suñu waa kër. Eh, jërëjëf sant suma yaay. dëgg la sant suñu waa koñ. ñu may ñëw ñoom ci boppam xoolal dañu ma jëndal kenn ku nekk sandwich. ndeysaan naa ma demal ak jàmm. ndeysaan di gërëm Paa Mbaye. nga xam ne moo jënd ay biscuit saraxel ba pour yoon bi neex. di gërëm mère Assou. bi ngi jaawale nga xam ne moom moo génne ay légumes sarax ko pour yoon bi neex. bi gërëm tamit Ali ah gërëm la waaye démb la ma jox yàpp dama lekkal parce que Macky Sall ma taw moom waroo xiif. <laughs> <laughs> oui. ah gërëm nga ba pare. waaw jërëjëf waaye tey du palaato nag. waaw may am contentement bu baax ci yow. waaw di am mbégte vraiment di gis sa taxawaay ci réew mi. waaw di wax ni may préparé décoré la. ndax gis naa ne képp ku fi nekk roi des arènes rek. waaw yow yaa ko fiy jële waaw def naa Tyson yaa ko daan. waaw yaa daan Balla Gaye waaw maa ko daan kay yaa daan Moustapha Gueye tamit xolol xolol ba pare xolol eh? Balla Balla Gaye ah eh. daan naa ko waaw yaa ko daan daan bu rafet macha allah seetaan naa combat boobu waaw vraiment di kontaan bu baax ci yow kii maa ko daan ba booy Paris ak France waaw waaw seetaan naa combat yi yow ñëpp yaa leen daan waaw ñëpp yaa leen daan sama yaay sama may wax ne ay mbokk nañu waaw xam nga moom Jalla sant ndeysaan waaw mairie mairie ñoom ñoo xam lépp waaw fi nga ñëwee dafa baax trop parce que sama combat ak Modou Lo ah. ba léegi joxoñu ma avance xam naa ci laay dund ah kon jot nga xaalis bi waaw fii jox lañu ma avance bi ah yow nag sama xel dal na ndax comme nañuy bombardier waaw ñu ko jëlee ci moo bombardé ah. moo tax dama bëggoon tey su guddi ah. nga ànd euh, Bécaye Mbaye nga demal ma Yemen fa guerre ba am bu ko defee nga jàppale soldats yi fan nga demal ma Yemen fa guerre ba am nga jàppale ma soldats yi bu baax a baax tey xam naa sama xel dal na te bombardier xam naa du daw dellu ginnaaw ma ne. waaw man tudd ma Bombardier de. ah Bombardier roi des arènes. déedéet Pata Sa tudd dama ah. nooyi. waaw baax nag ànd ak ñoom déglu ma déglu ma yaawu jaal bi ñuy coow moo ma dóor ma daan ma daanu. ah déedéet. yaawu jaal bi ñuy coow daf ma nax daan ma ma doom Bombardier bi ñuy coow tudd tudd Bombardier pataas moo nooy. màggalu Dakar daf ma nax daan ma Sarko daf ma nax daan ma Tyson bi moo ma daan Balla laajal ma laaj bi moo ma daan yaawu jaal bi daw moom daan na ma ñeenti yoon lii du doole lii du ma ole. dama naan ñey bi dama naan ñey bi dama naan ñey bi. lan moo tax muy weddi nii. Bécaye mii bakk ba bër daan mu ne Bécaye mii takk ba bër daan président bàyyi ma baal ak Bécaye. allo waaw. son excellence. waaw Bombardier wax na la. ah lu mu may wax noonu. ah seen foofu daa mujjee xumba sax. Ah, ah, ah, fii de xumba waaw. waaw pour nga ànd ak moom rek boo demee ndeysaan ak sa làmmiñ bu neex bi. ànd ak moom fan. Eh, nga dem Yémen ci guerre ba. déedéet moom moo tudd bombardier mu moom moo tudd bombardier moo xam ne ni bombardier. waaye yow it làmb bu amee man bàyyi ma ci làmb ji. bàyyi ma ci làmb ji rek moom moo xam ni ñuy bombardé. Bécaye waxu président moo xam ratatat moo xam bum bum. waxu président du dellu ginnaaw àndal ak moom nga dem Yémen. ah waaw ci guerre ba. déedéet man sans bopp day gaaw a métti boo gisee ni ma ko takkee nii. vous avez déjà signé. fan yii déet naa signé signé non non loolu da sama signature faux signature la. yow daal bi ñuy doon. moomu doon daal ma béykat ko wax.